jàng ida zulzilatil ardu zilzalaha fukki yoon des na ko ca bindal tuyaaba ju baari te des na ko jéggal bakkaaram yépp bu nekkoon ci njàqare it yàlla dana ëlbati njàqare ba te dana ko wattu ci balaa àdduna ak àllaaxira te dana ko musal ci ak ñàkk te dana dolli am koomam te dana wàcce ci moom yërmandeem ak yeneen ak yeneen mbokk yi ku ci bëgg yeneen nga dellu ci xuratu ayni bu Sëriñ Suwaybu bu Mbàkke page 147 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi